sunu identité yi ñu xamee woon ñun ñu taxaw temm ci far ko ba léegi ñëpp nekk benn mbooloo nuroo ci lépp mel ñëpp nekk benn melokaan te mooy melokaan bi nga xam ne nii ñoom gis nañ ne loolu moo war am ñu imposé ñu ko loolu nag mooy doxin wu bees yi loolu nag dafay tegtal ne kon nit ñi ñu ngi dellu gannaaw ñu yëg ko wala ñu yëguñu ko dañoo jàpp nañu ñu diggu civilisation waaye dafay mel ne dañuy dellu gannaaw ndax ñuy delloo suñ suñu dundin wu njëkk ba nga xam ne ni danoo doon ba gis ne loolu da wut ndin ñu bàyyi ko ñëw ci dundin wi moo tax léeg-léegi nag ngir jëfandikoo loolu léeg-léeg dañuy force ngànnaay léeg-léeg jëfandikoo ay li ñuy wax sanction économique réew wala boog mucc wala askan woo xam ne nii bëgguñoo jaar fi ñu jaar ñoom ñu ñu dagg la leen jëflante ci wàllu koom say koom ci bitti ñu téye ko dootu jot ba dugal na ci xiif dugal la ci coono ba askan woo ne ci coono loolu dañ koy jëfandikoo léeg-léegi ñu génne la ci mbooloo yi nga xam ne ni àddina bépp bokk maanaam ñu embargo ci wàllu politique maanaam mbooloo yoo xam ne association yoo xam ne nii wala boog organisme yoo xam ne nii ñëpp réew yi ci bokkoon ñu jekk-jekk génne la ber la ne ndax yow mënatoo ànd ak nit ñi ndax liñ bëgg bëggoo ko ba ci diplomatie bi ñu waxtaane léegi sax dañ léegi mi ngi sukkandiku ci doole réew yu baree bari léegi force la ñuy jëfandikoo ngir imposer seen i gis-gis ak seen i bëgg-bëgg ci ñeneen ñi ci des loolu nag kon dafay tegtal ne koon tomb la boo xam ne nii waxtaane ko am na solo lool ñu demee ba sàpp ku nekk ay xeet yoo xam ne nii ku ëpp sa morom doole jëfandikoo ko ku néew doole amatoo kàddu mbooloo mi bu ñu dajee képp koo xam amoo kàttan amoo doole amoo fa kàddu yow dañuy wax rek ngay jëfe waaye kenn du la laaj xalaat kenn du la déglu ànd ak loolu lépp nag fu ñu toll di wane ne ñoo ngi civilisation dañoo avancé ak yu mel noonu te moo ne kuy xool dëgg-dëgg da ngay gis ne loolu ak dellu gannaaw moo tax waxtaane tomb bi danay am solo ñu waxtaane taxawaayu diplomatie ci tasaare xalaat ak i pas-pas ak nun ko mën a jëfandikoo ci biir yoonu murit loolu defe naa ne tomb bu am solo la moo tax li ñuy tënk ci waxtaan wi mooy baat bi danañ jéem a xool dellu ci cosaan yi gëstu ko ba xam lu muy tekki dëgg dëgg dëgg suñ noppee dañ jox exemple yoo xam ne nii ci diplomatie yoo xam ne nii bu njëkk nit ñi daanañ ko jëfandikoo colonialiste ni ñu ko daan jëfandikoo diine ni mu ko daan jëfandikoo ngir tasaaram njàngaleem buñ noppee nag ñëw ci murit gi sëñ bi ni mu ko daan jëfandikoo ak ñu ci doxe baak si fii ak jumtukaay yiñ gis ne jàpp nañ ne mën na noo dimbale ñun murit yi bañ mën a dox jëfandikoo diplomatie tasaare njàngaleem sëñ bi door a tëj kàddu gi loolu mooy doon tomb yi nga xam ne ni moom lañu fas yéene waxtaane ah, sëñ bi moom xam naa daa nekk ci

compagnie bi waaw. day waar daanaka da nga koy bàyyi mu continué. bu ñu koy yéeme na suñu. nit ñi nag. lu mu tàmbalee waaw. loolu da ngay perte rek comme comme yaa ngi mën ci développé baax mën nga fa àgg rek tuuti mu suuf. ah léegi bi comme yaa xam nga de. waaw da koy bëri gis nga si. nu ngeen ko bëgg rek. ด้วยมันคนคน kon xam naa ñu jëkkanteeg waxtu wi xëy na bu ñu tënkee waxtaan wi kon mooy tomb yi ñu war waxtaane mooy jéem a xool baatu diplomatie lu muy tekki jéem a joxe ay misaal ci ñi ko daan ñi ko daan jëfandikoo bu njëkk ci tasaare seeni yitte ak seeni xalaat ak seeni pas-pas jël ci lu mel ne colonial si ni ñu ko daan jëfandikoo diine ni mu ko daan jëfandikoo bu ko defee ñëw tam ci murit gi sëñ bi ni mu ko daan jëfandikoo ak murit yu njëkkee ba jamono ji ñu toll nii danañ tënk tam ay jum yenn ci jumtukaay yi nga xam ne ni jàpp nañ ne ñun murit yi buñ ko jëfandikoo mën nañoo dimbale ci nu mën a tasaare njàngaleem sëñ bi teg ko ci diplomatie gu ma sëkk su ko defee nag dooru tëj waxtaan wi su fekkente loolu dana fi xaj kon biñ delloo ci tënk ci téere yi nga xam ne ni dañ waxtaan ci mbirum diplomatie ñu jéem a seet baat bi li muy tekk ñoom dañoo wax ne rek ci relation internationale yi ni ñuy jàngale diplomatie mooy jëpp jëf joo xam ne nii wala jéego yoo xam ne nii gouvernement yi dañ koy def ngir mën a jokkoog yeneen xeet yoo xam ne nii bokkuñu ak seenu xeet te jublu ca nag taxawal waxtaan ak déggoo goo xam seen biir goo xam ne nii dañ koy teg ci yoon ba noppi jublu ca nag ñoom mën a xamle seen mbir mën a tasaare seen gis-gis mën a tasaare seen xalaat ci réew moome waaye itam fexe ba mën a bàyyi jeexit xalaat yooyu ak jeex ak euh, pas-pas yooyu nu muy bàyyee jeexit ca ñamu jëm ba tax ñoom buñ bokkut ak ñoom pas-pas tam daañ leen nangul daañ leen mën a toléré daañ leen mën a jàppale ci ñu def donte gëmuñu ko waaye daañ waxtaan ak ñoom ba dëppoo ci kàddu yoo xam ne nii donte bokkuñu pas-pas ñoom daañ leen nangul seenu nekk loolu bokk na ci diplomatie ñuy jëfandikoo nag ay jumtukaay yu baree bari ñoom bu njëkkoon ngir mën a jàllale lu mel noonu bokk na ci lu mel noonu jokkaloo goo xam ne nii diggante nit a ngi lay doon dem ci réew dajale ak mbooloo mi di waxtaan ak ñoom wala sax nga def ay yoo xam yaa nga koy jaarale ci média bi lu mel ne rajo yeeg télé yeeg mel noonu bu njëkkoon wala sax ñu dem ba koy jaarale ci lu mel ne internet bi nga xam ne nii mën ngay toog fii di waxtaan ak mbooloo moo nga xam ne nii ay nangami junniy kilomètre mooy dox seen diggante nga leen di leeral say position say taxawaay ba mu na bàyyi ñoom jeexit dañ koy jëfandikoo léeg-léeg dañ koy jëfandikoo ci wàllu jokkalante ci wàllu aada ak cosaan ci misaal tey ñu jël ay nit indi leen fii bu ngeen xoolee lu mel ne américains yi ñu mel dañ koy jëfandikoo lu mel ne corps de wala maanaam lu mel ne sapone yi seen ñooñu ñu ñëw fii mel na ñu jàppale nit ñi loolu ci lu mel noonu lay jëm bu ko defee ñu koy jokkalante loolu dem day tax ñu mën a am jeexit ci ñoom dem nañ tam bay jëfandikoo li ONG mooy organisation non gouvernementale yi nga xam ne nii duñ topp gouvernement waaye nag daanaka ñu gouvernement duñu sore ñoom dañuy ñëw cim réew di fa liggéey ngir mën a rataxal diggante réew moom ak réew mañ jógee ñoom loolu ba tey ci diplomatie lañ lañ bokk dem ba weesu foofu léegi fexe ba li ñuy tuddee ar rajul am te mooy opinion publique bi mooy gisinu mbooloo mi ci réew moom doon nu mën a fexe ba gisinu mbooloo moomee ñu fexe ba dugg ca biir di ko jubbanti ak di ko teg ci yoon wi nga xam ne nii moo dëppoo ak ñun loolu defe naa ne ko gis àdduna bi ni muy tëddee léegi dangay ngay gis réew yu baree bari niñ ciy doxe fexe ba gisinu réew sàngam nañuy gisee ak nañuy déggee ñu fexe fexe ba dugg ca biir ba ay jeexit loolu dañ koy def fexe tam ba seen intérêt ya fa nekk nu mën koo sàmm te nekk ci dëkk boobee duñ ci am lu ñuy kii ba tey loolu kon loolu mooy baat bi ci cosaan waaye itam dafay tekki ba tey melokaan wi nga xam ne nii moo war a ne ci ki koy def ki ñu tudd ab diplomate nga xam ne nii moom mooy doxal loolu léeg-léegi baat bi day tekki melokaan yi war a ne ci moom bokk nañ ci melokaan yu mel noonu ci misaal moom ku war a am ak nooy la maanaam mën a jëfandee jëflanteeg ñu baree bari waaye itam ku muy jëflanteel itam dana fexe fexe ba waruma ji war a dox seen diggante dana koy bàyyi xel buy so buy doxal tam mbir ma damay doxe danañ ca sàmmoon sàmmonteeg ne gën a rafet muy doxe noona waaye tam da cay wane yar bu mat sëkk waaye na ànd ak loolu lépp day jël ay matukaayam ku teey lay doon koo xam ne balaa def dara dana ci xalaat jàngat ko ba xam lu ci mën a juddoo ak yëpp mu jël matukaay yu war a jël yëpp da cay bokk bokk na ci melokaanu ku ñuy tuddee ab diplomate tam mooy koo xam ne nii day am muus lool ak xerañte lool ci fa mu bëgg a jëm objectif yi ñu ko fixeel ne ko nga war a dox jëm fa dana fexe ba àgg fa te du def kenn lu ko naqari waaye tam du sabab kenn ak mbañeel diggam ak moom ndax am na yoonu muy jaar boo xam ne nii ba àgg fi mu bëgg am ba am li mu bëgg te kenn du yëg ne sax moom jaar na fa kenn du ci am la naqari loolu dafay teg loolu loolu nag wuute nag ñenn ñi ñuy jàpp ne loolu mooy diplomatie am na ñoo xam dañu jàpp ne diplomatie boo ko waxee mooy koo xam ne nii ab workat lay doon lam lay wax du ko def activités yi muy def ci kaw du bokk ak yi muy def ci suuf léeg-léeg muy def ay jokkalo yoo xam ne nii yu si ñu mën a sikki sàkk doon ba xam ko tax a jóg di wuruñ di wariñ mel noonu di di espionné wu maanaam di tajassus wala boog di roj raju ak yu mel noonu ak di complot ngir yeneen réew loolu xëy na am na ci diplomatie waaye mooy déggin yi nga xam ne nii déggin wu juunu la ci diplomatie waaye diplomatie dëgg-dëgg wala diplomate dëgg-dëgg mooy koo xam ne nii melokaan yi ñu waxoon bu njëkk dafay ne ci moom kon diplomatie ñu ngi ko tënk ci amug ñaw amug muus waaye tam nga am muruuna muruuna mooy koo xam ne nii situation bu ñëw dana mën a fexe ba ànd ak adapté wu situation boobu te du feeñ ci moom lool lool lool. loolu mooy may nit bu nekkee ci nit nu nit ñi ñëwee rek dana mën a fexe jëflante ak ñoom ba mën a génne ci ñoom orma ma xam dañ ko ko jox donte sax moom du wax wala boog la muy wax mën naa bañ a bari kon loolu mooy cosaanu baat bi. mu siiw lool ci jamono ji ñu nii ci relation internationale yi réew yi di ko jëflante waaye itam mbooloo seen bopp di ko jëflante waaye nit ci boppam tam mën koo jëflanteeg ñeneen ñi nit ngir mën a jàll ay xalaatam ak i loolu nag système bu fi yàgg la boo xam ne nii ñu delloo ci histoire dañuy gis ne ñu bari daanañ ko jëfandikoo bu ñu jëlee misaal mu toll ne ñu mel ne tubaab yi colonialiste yi ñu ñëwoon ci yeneen réew dem not leen toog fa daanañ jëfandikoo diplomatie ci njëlbeen ku mu nekk xam na ne diine dafa am taxawaay ci diplomatie dafa bokk jumtukaayu diplomatie yi jëfandikoo ngir mën a jàllale seen xalaat moo tax colonialiste bi ñu ñëwee li ñu te ay missionnaire mooy ñi nga xam dañaan tasaare diine chrétien ñaari ñoom dañ daan lëkkaloo ak tubaab yi ak colonialiste yi ngir mën a laytaayal tubaab yi bu ñëwee ñoom fexe ba comme ñoo ñoom ñoo bokk pas-pas daanaka jamono yooyu ñoo bokkoon pas-pas ñoom ñooy jiisu bu ñëwee laytaay terrain ba nga xam ni ñoom bu ñëwee population bi nangul leen dana yomb lool. moo tax ñaare réew moo gis colonialiste dugg fa boo xoolee danga gis ci wet gi ay missionnaires yoo xam ne nii dañ daan wër di tasaare njàngaleem diine waaye bokk yeneen diine ji te mooy diine yi nga xam ne ñoom loolu ñu gëm te loolu du fi gan. yàgg nañoo gis nitu diine yi ak nitu politiciens yi di jëfandikoo di jëflante seen biir lu bari danañ gis nitu politique di jëfandikoo nitu diine ngir mën a àgg fa jëm safaan bi tam day am day gis nitu diine yoo xam ne nii dañuy jëfandikoo nitu politique ngir àgg ngir mën a réaliser seen objectif loolu kon lu fi yàgg la kon colonialisme bi ñu ñëwee bokk na ci li seen diplomatie bi ñu doon doxee mooy fexe ba nit ñi seen pas-pas ñu soppi ko gëm loo leen diine ci ji nga xam ne nii ñoom ñoo leen ko indil nit ki nag boo ko fexee ba indi ko ci sa pas-pas ngeen bokk pas-pas ngir mu nangul la dafay daal di yomb moo tax loolu daanañ ci jaar di ko jëfandikoo te duñ jëfandikoo ngànnaay daanañ ñëw tam ci dëkk ci seen doxalin nu fexe ba nit ña fa nekk di ay groupe ñu naan maanaam maanaam réew sàngam réew sàngam boobu réew yi maanaam kajoor ci misaal Sénégal ñu ne kajoor bawal saalum nu fexe ba dugg ci diggante kilifa yi ne woon foofa di leen boole ba ñoom seen biir ñuy xeex ba néewal seen bopp doole bu ko defee ñoom lañ bëggoon def ñooñ dañ leen ko defal te ñoom duñ sonn loolu tam daanañ ko jëfandikoo ci kaw ñu ñëw defak ak ñoom coalition boo xam ne nii ku nekk xam na ne la cay ngaañ ca ñële lay juddoo la cay njariñ ci ñoom lay dellu si loolu daanañ ko jëfandikoo moo tax ñoom dañ daan jëfandikoo diplomatie ci sens bi nga xam ne ni mooy sens négatif bi te mooy li ñuy wax mbooloo boo ko bëggee yilif boo bëggee nguuru seen kaw da ngay fexe ba tas leen boo leen tasee bañ nekk par kenn bu ko defee da leen di jël par kenn di leen not ba mu wëlbatiku not mbooloo mépp moo tax bu ñu masaan ñëw dañ fexe ba ñu ànd ñu nekk ñu fexe ba tàqal leen loolu feeñ na ci diine ji feeñ na ci suñu réew yu njëkk yi maanaam maanaam Bawol ak Saalum ak yooyu ni ñu leen jaxase woon ba ñuy xeex seen biir ceddo yi ak maanaam doomi soxna yi àgg na léegi ba ci lislaam li nga gis nañ ko defee ay pàcc-pàcc ki ñu tudde ko nangam kii ñu tudde ko nangam kii ñu tudde ko nangam fexe ba duñ nekk benn ndax loolu bu ñu nekkee benn leer na leen ñoom seen seen seen seen du jàll bu ko defee ñu fexe ba tas ñu def ñu ay secte maanaam secte maanaam ay kuréel kuréelaan ku nekk jàpp ne sa moroom néew ci dara bu ko defee ñu fexe ba tas ñu loolu mooy dangay ngay tàqale mbooloo mi bu fekkee dangaa bëgg a nguuru seen kaw kon loolu ñoom yàgg nañ koo jëfandikoo te ba léegi nag colonialisme dafa bu njëkk ba moo xewi waaye li ñu tudd néew colonialisme mooy façon colonialisme bees bi ba léegi ñu ngi jëfandikoo jumtukaay yu mel noonu donte nag soppi nañ ci dugal nañ soppandiku waaye ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo léegi tey boo xoolee ñu sos ay ay organisme yu baree bari tey boo demee réew yi ñu tuddee seen bopp francophonie ci misaal tey ñu ne réew yi ñoom tubaab la ñuy làkk ñun li suñu yoon newul ci tubaab waaye fexe nañoo fexe ba ñun Sénégal ak Côte d'Ivoire réew Afrique yi ñun ñu ay francophone lañu anglais fexe ba am ub groupe tudde leen anglophone maanaam ñu ne ñoom anglais la ñuy làkk portugais yi fexe ba am ci ay lusophone maanaam ñoo xam ñun ñoom portugais mooy seen làkk yooyu ay jubtukaay la yoo xam ne nii colonialisme ak impérialisme bu bees moom la ñuy jëfandikoo ba tàqale nit ñi mën a sukkandiku ci kaw di nguur seen kaw di sàcc seen alal di leen jëfandikoo ci wàllu xel xalaat dafa tasaare seen i gisin mën naa am ñu ko seqal duñ ko xam bu baax kon yooyu yëpp lu ñu daan jëfandikoo la ci tubaab yàgg nañ ko jëfandikoo ñu xam ko bu ñëwee ci diine ji tam diine yàgg naa jëfandikoo diplomatie bokk na ci woote yi njëkk a jëfandikoo diplomatie ngir tasaare seenum njàngale diine ci la bokk li ma tuddoon léegi muy ay missionnaire daan daanaka diine yëpp a yëpp dañu daan jël ay nit formé leen jàngal leen diine ji bu ko defee ñuy wër di dem ci yeneen réew yi di fa tasaare ji waxtaan ak ñi di leen ci dugal moo tax ñoom daanañ jëfandikoo diplomatie ngir xëcc nit bu ñëwee fexe ba xëcc la ba convaincre la ba nga gëm pas-pas bi nga nangu ko te duñu xeex ak yow duñu xulóog yow waaye ci waxtaan lañ koy jaare loolu moo doon taxawaay ñun ci alxawaariyun xawaariyun sayyidina Isa alayhi salaam ñooñ ñi ko daroon ñooy xawaariyun loolu moo doon seen mission ku nekk xam na ne diine chrétien lu ci baree bari ñu ngi koy jàng jamono ji ki ñuy wax Paul moo ko ci dugal Jean Paul maanaam pool Paul moo doon moo moo moo doon ci xawaar yoon yi ñu ci baree bari njàngale mu baree bari moo ko ci dugal moo ko tas tam ba ak yaatu ci àdduna bi fu baree bari noonu la amee boo ñëwee saxaaba yi toppoon ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lañ meloon xam ngeen ne ku nekk da ngaa demoon fu barab ne fa di tasaare njàngaleem lislaam loolu tam mooy taxawaayu li ñu tuddee ay rijaalu diin mooy nitu diine ñi boo delloo ci yonent bi sallallahu alayhi da ngay gis ne lislaam bi muy door juddu nekk makka nekk ci ay coono yu méttee métti yonent bi li mu njëkk a def ci diplomatie la ko jaarale mooy waxtaan ak buur bi nekkoon Éthiopie ñu ko daa wax na jaas yi ne ko damaa bëgg am ñu ma indi ci julli di foofu nga aaral ba leen ba ñu am doole mu nangul ko ko loolu ci diplomatie la ko jaar am ci mbooloom jullit ñi njëkk a nekk ci lislaam daal di gàddaay dem Éthiopie nekk fa diir ba yëf yi gën a daal ñu dell si demaat nañ fi sax gannaaw loolu ci diplomatie la ndax du xeex du dara gis nañ tam yonente bi aleyhi salaam ni mu daan jëfandikoo diplomatie ci giir yi daan ñëw màkka di siyaare xam ngeen ne ci la jokkaloo nag ñu nekk yasrib yasrib mooy madinatu munawwara léegi noonu la tuddoon bu njëkk noonu la jokkal ak ñoom waxtaan ak ñoom bañ dëppoo ci ne ko jullit nañ gàddaay màkka ñëw madina ñëw yasrib bu ko defee ñu dalal leen ba lislaam am doole noonu yonent bi salaam def waxtaan ak ñoom ba jullit yi xëy gàddaay màkka dem yasrib wàcc yasrib loolu ci diplomatie la ko jaare du xeex du dara waaye li ci ëpp solo mooy yonent bi mu ñëwee yasrib xam na ne turu yasrib buñ ko bàyyee noonu gan ñi ñu ñëwee ñoom dañ gëm ne dëkk bi dañ fay tuum ndax dëkk bi yasrib la tudd kon ñoom bokkuñ ci waaye yasrib ñoo ko moom moo tax ci diplomatie la jëfandikoo bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy soppi turu dëkk bi bu ko daal ku tuddi Madinatu Munawwara nga xam ne kon ñu gan ñeek dëkk yëpp dañuy daal di xam ne kon ñoo yem ci dëkk bi ndax dëkk bi turu bees la am loolu ci diplomatie la ko jaare def na ko te moo ne ña dëkkoon Yasrib maanaam kaasuñu naqarlu wuñ ko méttiwu leen ndax ci yoon woowu mu ko jaar ci la ko jaare ku nekk gis na yeneen bi ni mu daan bindanteeg yeneen buur yi ña nekkoon furs maanaam perse yi ni mu daan bindante na ñoom byzanti yi Rome ñooñu ñëpp daan bindante ñu ay lettre di leen woo ci lislaam bind lettre buur ba lay bind lettre di ko woo ci lislaam loolu lu am solo la ku ne xam na ne ñoom ñëpp daan kenn dugg ci lislaam waaye nag bind gi mu leen bind rek lettre loolu rek dafa am lu mu bàyyi ci ñoom ndax dana tax ñoo xam ne ah kii kat kon li mu nekk dëgër na ci dëgëraay boo xam ne nii buur bu toll ni diw sàngam gannaaw moom la ñooy bind lettre di ko woo kon keneen du mat a wax bu ko defee ñoom même buñ dugg ci lislaam itam dana tax ñu bàyyi woote bi lislaam bi dañ ci bàyyi xel loolu ci diplomatie la ko jàngale la ko jaare te loolu lépp alxuraan moo ko njëkk a jàngale alxuraan moo njëkk a jàngale melokaan yi diplomate dëgg-dëgg ak nooy jaare ci diplomatie ba mën a tasaare sam njàng da nga gis muy wax ne ko yonent bi koy wax ne ko na ngay diisoog nit ñi na ngay waxtaan ak nit ñi ci mbir mi mbir mi mooy état bi wala boog li mbooloo mi séq na nga ciy waxtaan ak ñoom del diisoo te diisoo mooy mooy cosaanul diplomatie loolu jàngal na ko ne ko nag boo diisoo nag ba jël sa décision nag na nga wakkilu ci yàlla dellu waxaat ko ne ko su fekkoon da ngaa nekk ku tàng xol gaaw a mer mënoo négocier mënoo waxtaan boo gëstoo doo gis kenn sa gannaaw loolu mu ne ko kon nag kon na nga leen di jéggal na leen di jéggal te di leen woo ci ak diisoo loolu ak alxuraan moo ko jàngal yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal le ne bu ngeen di wootee jëme ci yoon yoonu yàlla na ngeen ko teg ci xikma xikma mooy mooy ak xereñteef na ngeen ko teg tam ci wax ju neex ju nooy ju rafet loolu la lislaam jàng daal ne bu ngeen di werante wala ngeen di discuter ñi nga xam ne ni bokku leen ak ñoom diine day leen discuter ak ñoom ci façon bu gën a rafet kon loolu lépp ci xeet diplomatie lay dugg kon diplomatie ci diine lu am wàccuwaay ci diine la ñu yàgg koo jëfandikoo ngir tasaare njàngale am njàngalem diine te loolu nag ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo ndax ku nekk xam ne ne ba léegi diine ji ñu ngi wër di ko tasaare donte sopp nañ ci melokaan yu baree bari léegi def ko ay organisation def ko ay nangam nangam yu baree bari di ko jaar ci alal ji di ko jaar ci yeneen yoon yoo xam ne nii ñi ngi dugal nit ñi ci diine yi te duñ ñoom ci wàllu ngànnaay waaye ci xel ak xalaat ak aw doxalin wu rafet ci lañ leen di dugalee bu ñëwee ci murit gi itam naka noonu rek sëriñ bi radiyallahu anhu mën nañu jàpp ne diplomate bi gën a mag ci àdduna bi mooy sëriñ moom mooy sëñ ndax mi ngi njëkk a feeñee ci ni mu tubaab yi bi ñu fi ñëwee système bi mu ñoom moo ëpp efficacité foofu moo gën a mën a àgg fa moo ko gën a mën a àggale fa mu jëmoon fukk te moo ne jëfandikoo benn yoon ngànnaay loolu diplomatie bu ma sëkk la ci wane. ndax gis dem na ba gis ne force bi tubaab yi yor muy ci wàllu ngànnaay rek bu dee fetal ak ay yu mel noonu tubaab yi liñ ci yor méngoowut ak ñun liñ ci yor ci misaal tey ñoom dañu yor ay ay ay canon yor ay sar yu mel noonu ay xeexukaay yu xarañ yow nga yor ay jaaseeg ay xepp ak yu mel noonu mënoo xeex ak ku mel noonu ndax bokku leen ngànnaay moo tax sëñ bi mu ñëwee situation yi bokkuñu kon ñii beneen façon ci la ñu war a jaare ñoom ba man leen a not loolu nag ci diplomatie la ko jaare moo tax sëñ bi bi mu li mu njëkk def mooy soppi façon xeex bi mu war a xeex ak tubaab bi te ku nekk xam na ne am na ñoo xam ne nii ngànnaay lañ jëloon ne dañuy jaamarloog tubaab bi tey ñooña ñu cëpp tubaab bi moo leen faagaagal moo leen fi jëlee te ba mu leen fi jëlee daanak seenam njàngale foofu la ñu tas ko te moo ne sëñ bi mës la jël fa nga jëfandikoo te njàngale moom doon jàngale ci jamono tubaab bi tey la gën a dëgër tey itam lañ koy gën a fàttaliku kon système bi mu jëfandikoo moo ëpp efficacité bi yeneen gars yi doon jëfandikoo boobu boo demee ci xasida ak yaa jumla tan dana ciy firi dana ciy wax lu baree baree bari kon gis na ne moom violence violence du ko tontu bu fi nit jëfandikoo nga ngànnaay violence ngay jëfandikoo violence ne moom violence bu bari rek lay jub waaye du am solution du am mukk moo tax mu soppi yëf yi jaar ko nag ci façon boo xam ne nii bu am solo la njëkk mooy sëñ bi li mu def mooy former ay doomu aadama formé ay nit bañ mel ni mu bëgg ñu mel ko daal leen di tasaare nag ci biir gox yi ñu tasaaroo ci biir réew mi fu nekk kenn mel ni mag dem sanc fa gannaaw bu ñooñu nag defar nañ leen bañ mel ni ñu war a mel ñoom dañoo dem rek toog amul kenn ku ci daan wër naan kaay leen jébbalu ci man wala ku ci wër naan féetale ma diw ak diw loolu léegi la am waaye amutoon bu njëkk mag ñi day ñëw rek wàcc ci barab melokaan wi nekk ñoom ñoom la nit ñiy gis mu nekk melokaan wu leen neex bañ xemmem leen bu ko defee nit ki mooy jékki-jékki ñëwal ci boppam ci mag moomu ne ko mën de nii nga mel wax dëgg yàlla bëgg na maa mel noonu su xasee ñëw nag mën ah ni ma mel ka nag soo bëggee mel nangam ak nangam ak nangam mënta ñàkk sat sàng sàng mënta ñàkk mu daal di koy nangu bu ko defee mu daal di def mu bàyyi ah, benn mu indi ko sëñ bi wala mu nangul ko bu ko defee loola foofu lay juddoo système boobu moo tasaare yoonu mu tasaare bu gaaw te moo ne amul propagande amul campagne amul dara def naa ne ci diplomatie bu am solo la boo xam ne nii euh, yoonu mu tasaaroo na ci kon mag ñooñu ñoo doon premier ambassadeur yi nga xam ne ni ñoo doon représenté murid yi ci gox yëpp te sant ko def ci liggéey bu am solo nag boo xam ne nii eh, sëñ bi def na ko ñoom. ci diplomatie sëñ bi tam daañu ci gis ne mag ñi toppoon sëñ bi ci ñun liñ gis jàng ko liir ko ci ay xissa ñu nett li ñu ko mësu ñoo dégg mel ni mag moo xam nettali nañ ne nangam ba ma ko defee keroog dóor yi ma sëñ bi dóor wala dóor yi ma sëñ bi dóor mësu ma ko dégg ci kenn. mësuma dégg fenn nit ñu ne mag sàngam ba mu defee sàngam sëñ bi dee nañ ko jéng mësuma ko dégg mësuma dégg mel ni mag moo xam ne ba mu defee sàngam sëñ bi dee nañ ko tëj mësuma ci dégg yooyu kon sëñ bi mësu koo jëfandikoo te moo ne yooyu ci nit ñi dañ ko te moo ne lam doon jàngale lépp jàll kon loolu diplomatie moom la doon jëfandikoo digg mag ñi mu doon yar te loolu mooy teg leen ci yoon woo xam ne nii li nga bëgg ci ñoom da ko am te doo jëfandikoo doole loolu def na ko ñoom ñu gis ko te moo mag moo ci jàng histoire am daañ la nett li ci moom teraanga joo xam ne sëñ bi defal na ko ba léegi ay sëtam moom la ñuy demal kon loolu defe naa ne diplomatie féetiwu kaw moo tax dañu jàngal kenn ci doomi sëñ bi daana wax ne nit ñëpp de mën nga leen sol ci mel ni mbedd waaye nag mbeddum teraanga lay doon teraanga mooy loo xam boo ci jaaree nit ki moom fi nga ko bëgg a jaarloo dana fa jaar te doo jëfandikoo benn ngànnaay doo jëfandikoo benn kii te dana nangul te doo jëfandikoo benn ngànnaay sëñ bi foofu la jaar ak mag ñi xëy na leen li baatin la loolu duñ dugg waaye liñ mën a xam man koo xeltu loolu ci la bokk te mooy ne ku nekk ci ñoom séq na ak yow teraanga joo xam ne nii ba léegi say sët dañ koy damoo bi sàngam def na te moo ne mosuñu mosuñu dégg kenn koo xam ne nii séq na ak moom loo xam dañ naan sëñ bi keroog la ko def ci lu métti wala yu mel noonu kon noonu sëñ bi daf koo jëfandikoo ba tasaare njàngale mi ci mag ñi daal leen di tas nag ci biir réew mi fu nekk mag wàcc fa sanc fa dëkk ba xam ngeen ne dëkk yi say muri di sanc ci Sénégal kenn xamul nu njàng mi daal di tasaaroo ci lu gaaw noonu mu ko doon jëfandikoo ci biir murit gi nag noonu la ko doon jëfandikoo ak ñeneen ñim séqaloon lislaam ñu doon ay mutasawifoon ne moom wala boog doon dund suuf tasawuf ne moom nekk ci biir Sénégal ak bitim réew relation yi bi sëñ bi seqoon ak ñooñu doon ko jaar ci diplomatie ci ñett étape la ko sëñ bi def étape bu njëkk bi mooy daf koo théoriser théoriser mooy daf ko jàngale ci am mbind yaxal ko yaxal gi li muy jariñ mooy képp ku bëgg a jëfandikoo loolu ci mbindum sëñ bi rek ngay dellu du jaar ngay du jaar ngay jaar fa sëñ bi jaaroon yow mooy yaxal gi daf ko théoriser ba pare bi mu ko yaxalee ba pare yar ci ay nit ni ma ko waxoon léegi tasaare leen ci réew mi waaye nag ba noppi moom ci boppam mu jëmbal ko ci dëggam ak ñi nga xam ñoom la seqaloon islam bi ci jamono yooyu. moo tax ci te ci état bi mu ko doon théorisé dañuy gis ne boo delloo ci mbind mag ñi ku mel ne Cheikh Mamadou Mourtada mi nga xam mooy moo nekkoon directeur bu Alassar bu Thiès doonoon suñ doomi si Cheikh Fatou Fall bind na téere ba am solo ci almouridiya di ci li sëñ bi ni mu doon jëflanteeg ñi mu seqaloon diine ji da cay bind ne sëñ bi de jamono ju nekk ak barab bu mën di nekk nee na jullit ñoo doon ay soppeem ñoo doon ay mbokkamtam tam mu ne dundam gépp nag ni mu fi nekkee bi ni mu fi jógee lépp mu ngi ko def ci fexe ba xetti li jullit yi génne leen ci réer ak cànkutéef waaye génne leen ci ak mooy yàlla gi nga xam daf leen di alak yóbbu leen ci xam ak njub ak mucc goo xam ba faw lay doon nee na yëngutu bu mës a yëngutu jéegu bu mës a jéggi mi ngi ko daan inspiré woo ci maanaam inspiré wu islam islam ju ubbiku nag islam joo xam ne nii dafay ubbiku islaam joo xam ne nii du problème mu secte xamul secte secte mooy ay tawaay ay kuréel kuréelaan yooyu nga xam dañ koo dugal ci lislaam te bokku ci amul toon tam ay barrières yoo xam ne nii kii danaan man lii laa kii man laa déet sëñ bi ñëpp la jàppoon ne ay jullit la ñoom la doon waxal maanaam gox tam daaw man kii ndàngam la kii saalum saalum kii kajoor kajoor la kii bawol bawol la loolu daaw sëñ bi daaw ko xal ci njàngaleem kon daal lislaam ju set moom la doon gis moom la doon jàngale yoonu murit gi sëñ bi su koo jàppee muy yoon woo xam ne nii dafa ñëw yokk ci lislaam waaye dafa jàppe ne moom lislaam la rek ju muy jàngale ju muy beesal di ko beesal noonu la ko jàngale loolu ñu demee ci xasida yu baree bari dañuy gis mu di ko ci jàngale dal ci yar nag ay mag loolu wax nañ ko léegi du jar ñu ci dellusiwaat waaye nag ñim dafa seqoon ay relation yoo xam ne nii yu am solo la ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal relation yi bu ñu ko doon gëstu ñu ngi dellu ci xasida yi nga xam ne ni mag ñooñu dañ koo defoon ci sëñ bi muy jëmmal relation bu baax boo xam nekkoon na seen diggante boo demee gànnaar ku mel ne Cheikh Sidi Baba nga xam ne nii ci njëlbeen sëñ bi tubaab bi dañoo jàppoon ne moom Cheikh Sidi Baba mooy sëriñam bañ yóbbu ko fa Cheikh Sidi Baba moomu sëñ bi jëflante na ak moom noo xam ne nii moom ci boppam dafa wëlbatiku jàppe sëñ bi ab moo bind a cheikhu ahmadou niamatun awlaaha haasil xalaq kulla mawt ma ne wane ne daal sëñ bi daal xéewal la goo xam ne nii yàlla moo ko may bindee fii jagleel leen foofu la Cheikh Sidiya te jëf leen di ko sëñ bi moom moo tax ba dem ba lim doon nekk nekk naar mu nangul ko ba bind ci moom lu mel noonu waa ma madinatul munawwara xam ngeen ne ay jamono ñëwoon na Arabie Saoudite neexutoon booba ci coono metti lañ daan dund mas nañoo nekk ay jafe-jafe bind dele yabal délégation ci sëñ bi sëñ bi dimbale leen ndimbal lu mag a mag ñu delluwaat moo tax ñoom xasida gi ñu ko ndiloon dañu wax ne ko cheikhul haqiqati wa tariqati wal huda haadil wara lil haqi wal iman loolu naar yi jóge na na munawwar ñoo ko bindi sëñ bi ne ko yow yaay sëriñ bi nga xam ne ni yaay sëriñu tasawuf yaa nekk ci yoon wu jubbi yaay jubbanti mbindee fi ci dëgg ak ngëm loolu ñoom ñoo ko wax sëñ bi te loolu moo ne ci diplomatie la sëñ ndax dañu leen dimbale ci mel noonu